xam sa démb xam sa tey xam xam sa tey xam production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix. ma ne kii Baaba Maal di way kana kii Baaba Maal di way mooy doomi Fuuta bay di kàcce pam mooy ka rayoon administrateur colonial ba tubaab ba nga xam ne moo fa toogaloon France fële ca Fuuta ñu tuddee ko Abel Jandé bay di kàcce pam moomu bokk ci doomu Fuuta yi bokk ci doomi l'Afrique bokk ci doomi Sénégal yi nga xam ne dañ doon bañ di bañ baray tubaab baray tubaab bu amoon ndombay tànk ñu bëgg a suul jëfam nag tey ñu sulli ko ana lu taxoon mu jóg bay di kàcce paam mooy jóg rek ne tubaab bi fii doo fi toog ne tubaab bi fuuta tooro gi doo ko xar ne tubaab bi sunu réewu maam mi doo ko moom moo tax tey boo demee fuuta bu mag ñiy way bu gone yi wayantu ña ngay way naan moom tunoo de yawaare maanaam ki dogoon buumu gàcce yi di Baydika ca Pam mi ngi juddu ci 1866 ca dëkk bu ñaan Guiya fële ci wetu Podor ba muy ndaw nag ca la taxawoon ne du nangu mukk tubaab bi jël Fuuta Tooro di ko xar def ko ay canton ñu naan tubaab ko moom mu ne it du ma nangu mukk jamono bi tubaab bi wut ay soldaar ngir yóbbu leen ñu xeex yi ak waa Madagascar xeex yi ak waa Indochine xeex yi ak waa Dahomey mu lànk ne du seetaan mukk ñu jël ay doomi nit ñu ñuul di leen yóbbu ci réewi jàmbur fu tubaab bi jaar ne ayca mu jaar ne bu leen fu tubaab bi jaar ne jóg leen mu jaar ne bu leen jóg loolu moom moo tax nag ñi ko xamoon bettu leen bi mu amee ñaar fukki at ak ñeent moom bay di kàcce paam mu jóg taxaw ne campagne bi commandant Abel Jandé di def di wër Fuuta ngir wut ñu dem xeexali tubaab yi moom du ko nangu moo taxit nag li xam ne tubaab bi def ko bëggoon ne day xeex ñii xeex ngir boseya bi almaami Abdul Kan jiite woon moom boppam tubaab bi ne du sotti bay di kàcce paam ne dana sotti loola nag moo tax bay di kàcce paam ne fuutanke yi bu kenn jël ngànnaay di xeex sa mbokkum fuuta bi ko tubaab bi yëgee da ko woo bi mu ko woo ne ko bay di yow de damaa dégg ne yaa ngi wër fuuta fu ma ne ay ca nga ne déedéet bu ma ne jóg leen ànd xeexali France nga ne bu kenn dem dégg naa it yaa ngi woowaa Fuuta ngir ñu ànd ñoom ñëpp bañ li tubaab bi bëgg man nag administrateur bi di Abdel Jande maa la woolu fii ci ay relaaw te li ma lay yëgal mooy daan yi ma lay teg mooy nanga fi indi ñaari yëkk teyit sama bagage yi nga xam ne moom laay tukkee bésub lëmm da koy yenu ci biir Boseya gépp say mbokk di ko gis waaye te am na koo xam ne du torox mukk dee ko ko gënal bay di gàcce pam ci ñooñu la bokk bi nga xamee ne gàcce gi jub na ko mu ne man du ma yenu gàcce googu waaye nag bu defut dara dafa baba guddi mu dem dugg ci néeg bi nga xam ne fala la bi di abbé Jean de tubaab bi di nelaw jël fetalam sotti ko ci kawam daal di koy rey ci saasa loola ma nga amee woon 2 septembre 1890 ci ay relaaw nguurug tubaab bi nag amatul jàmm gouverneur bi nga xam ne moo nekkoon senegal di Clément Léon Émile Thomas ne nañu dem gëstu ji mbir mi ñu daal di yëgle ne ku gis bay di kàcce pam na ko jàpp rey mbaa mu indi noonu nag lañ ko jàppee ban ko jàppee dañ caa boole Lamtooro Sidiki Sall du Yero Sall Boucara Abdoul Kane ñi nu jàppoon ne ñoom ñoo ko doon dimbale ci loolu mu doon def bayri kàcce paam tubaab bi mu noone nangu ne ngone su ndaw ñaar fukki at ak ñeent am na fitu jóg moom rek song Abel Jandé di administrateur di ko rey ndekete booba tubaab bi yaakaar na ne ñi nga xam ne ñoo jiita dëkk yi di borom dëkk yi ñoo ne ci ginnaawam di ko may doole ngir nag képp koo xam ne yaa ngi fuuta doo ñemee li nga xam ne bay di kàcce paam moom la def ñu daal di koy atte atte bu gaaw boo xam ne teguwut ci yoon ak ñaar ñi nu jàppoon ne ñoo ko doon dimbale muy Lamtooro Sidiki Sall ak doomi buur bi di Mamadou Yero Sall ñu daal di leen tëj nañ leen tëj boo xam ne dañ leen a war a rey loola nag moo tax ñetteel ba Boubacar Abdoul Kane ñu yeewi ko ne ko xamuñu loo def gis ngeen nag tubaab bi nguuru tubaab bi ngir gën a yóbbu seen fit mu woo ñetti borom dëkk yii di dëkk borom dëkku Gede borom dëkku Njum ak borom dëkku Giya daal dina leen yéen yéen a bokk ci li tax gone gi ñeme yéen ko ngemb ne nag seen waa dëkk yi nañ dajale juróom-ñetti téeméeri nag ay yëkk ngeen indi ko te da ngeen ko indi ci saasi bay di kàccee fukki fan ci septembre 1890 ca digg mpenc ma ca Podor fa lañ ko reyee woo nag kilifay tooro yépp ñu toog ñu teg ci juróomi fan lam tooro sidiki sàll ak euh, doomu baayam mamadou yero sàll ñu daal di leen teg ci kanamu borom mbëq doom yi daal di dagg seeni bopp rey leen bi daggee seen bopp nag capitaine Pinault ko def te gouverneur bii di Clément Léon Émile moo ko santoon ñu daal di jël nag seen yàpp yaram sànni ci dex gi nen na ko jësi di dundee ana booba luñ ci bëggoon toroxal leen ana booba luñ ci bëggoon xañ leen bàmmeel loola moo tax ñu jël seen bopp ya wékk ca pénc ma ca digg Podor daal bind nag ci mbindum arab ne ñii ay workatu seen réew lañ waaye gis ngeen de rayin wa ak jëfin wa ak wane wiin wa ana lum doon wane mooy bëggoon rek képp koo xam ne bëgg ngaa jóg dal ci ko tubaab bi dootoo ko ñemee def waaye gis ngeen booba daka ñàkk a xam lim waral bëri na am na ñoo xam ne mbir mi métti na leen ban wane ko tubaab bi nag bañ a wax ne eh, rey nañ colonel Abel Jandé mu tuddee ko l'affaire de Podor de septembre 1890 maanaam xew-xewu Podor ya septembre 1890 ndax nag ñetti rey yooyu ñu rey ñetti doomu Sénégal yooyu ñetti doomu Fuuta yooyu amul benn attekat bu ko digle woon ay nit rekk a tëju woon seen bureau ne nan ko def moo tax gis nga bi novembre 1890 jotee njëre bi ba bi nga xam ne moo doon teeñ ji Sidiki sàll dafa dem ndar dem ndar ca bureau ya daal di ne atte bi du yoon te danaa dal ci seen kaw jaar ci yoon bi tubaab bi jaaxlee nguurug tubaab bi jaaxle ñu daal di fexe ba nëpp nëppal mbir mi juge d'instruction bi nga xam ne moo yoroon l'enquête bi ñu daal di koy jël génne ko Sénégal ñëpp ñi nga xam ne taxawoon nañ ci àtte booba te rayoon ñett ñooñu ñu daal di leen a génne Sénégal noonu leen def ba mbir yi yem fa kenn àtte waatu leen waaye nag gis ngeen mbokk yi wolof nee na suul ker du ko teree feeñ ndax mbir ya kenn mënu ko woon far ci bopp fuutanke yi Baaba Maal ci boppam way na ko ndax xam na wayam wu siiw wu tudd Lam Tooro ma nga cay way li nga xam ne bañkat yooyu moom lañ def muy bay di kàcce paam di ci wayit Lam Tooro Sidiki Sall waaye gis nga Baaba Maal woo na nit ñi ci bu nu fàtte doomi Sénégal jooju nga xam ne dafa xeexoon bañ tubaab bi noot ñu ba rey tubaab ñu bëgg ko suul na jëfam du siiw sulli nañ jëfam ndax bay di kàcce bi tubaab bi ñëwee ne ko damaa am sama yoon daf ne ko man yoonu ngor laay doxal mooy sama yoonu cosaan bi tubaab bi ñëwee ne ko dama lay tegi daan daf ne ko du man nangu yow nga indi fi dogal yoo xam ne teguwut ci yoon ma ci jaar te yow doxandéem nga ndax moom ci aadaam dee moo gën gàcce bay di kàcce paam nag looloo tax mu doon bañkat bu mag bu nu war a bind xam war koo nettali réew mi waaye nag keroog ba tubaab bi jël yàpp yaramam di ko sànni ci dex gi booba bëggoon nañu fàtte ko ndax bëggul woon moo am bàmmeel bu ñuy dem di siyaare ji waaye nettale mooy bàmmeelam jëfam rëy na bay di kàcce paam mooy doomi Sénégal doomi Fuuta doomi Afrique gi woon tubaab bi doo fi tubaab bi ne ko danaa fi mu jël balu fetal dóor ko tubaab bi Abel Jandé bu leen ko fàtte mukk ku jëf lu rëy ñu nettali la lu rëy xam sa démb xam sa tey doomu Sénégal bu nu war a fàtte dinañ sulli jëfam xam sa démb xam sa tey bay di kàcce paam. xam sa démb xam sa tey di waxtaan wu leen Goethe Institut may ànd ci ak Archives nationales du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation Massamba Gueye assistant Abou Soumaré régie technique La Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Fall Goethe Institut